Eh, eh, le parti UNR tenir une assemblée générale ndaw ñi def seen réunion démb def une résolution anciens y ak famille réunir def seeni résolution mandaté ma ne ils ont choisi le meilleur profil bi ñu réunir tënk majorité bi dégagé ne benn profil moo baax pour Sénégal benn profil moo baax pour eggali le bilan élogieux de son excellence monsieur le président de la république Amadou de la république Macky Sall muy la personne du premier ministre Amadou Ba. bi biñ ko waxee ñu d'accord ko ñu fasal ko tey dëggal ko. jot na tey Sénégal fireeku. jot na Sénégal giññeeku. coow amoon na pënd bi wuri. bu coow li bëree wax ji bëri recul ak réflexion def si baax moo waral lii mais bu ñu waxtaanee discuter. ñu am jiit bu mat jiit muy la personne du président Macky Sall ñun ñu am un parti légalement constitué mu waxtaan ak ñun ñu ànd ak moom si ngor ànd ak moom si dëgg mu joxoon ñu la personne du premier ministre Amadou Ba ñu lu dul abdiquer la résolution de son excellence monsieur le président Macky Sall. dama ne woon sax weeru koor gi duma politique damay jël sama alxuraan di jaamu yàlla waaye nag politique si jaamu yàlla la bokk. comme ñun dëgg ñu lal dëgg ñu dëgg googu la ñuy continuer may laal kuy sos di kàcc ba weeru koor jot nga war a mën a lem sa làmmiñ tàllal si jaaja jël kur si jéggalu suñu borom waaye ngay kàcc ba taxaw nekk ab simple inspecteur des impôts et taxaw na yow yaa doon auditer sa directeur général ce qui reflétait di pur mensonge may jàpp ne booy kàcc di sos di wax di nettali ba dugg kaso te ñun ñu jaaroon kaso kaso nga waroon faa dugg pour repentiru nga waroon faa dugg ngir jéggalu nga waroon faa dugg ngir ànd ak jaamu yàlla gu sax gu dëgër lu toll ne wooru koor gu sell gu màgg ngay jël ab dëgg di ko wecceeki ay kàcc wax dëgg yàlla Sénégal yëpp am nañu ndaqar Sénégal yëpp am nañu gàcce ñu am suñu candidat war ko dëggal fasal ko dinañ ko def bu jaree xeex dinañ xeex bu jëree joxe suñ bakkan nag joxe suñu bakkan bu daree génnee askan bi ñu ko incha allah rabbi nañ ko def la wanoon danañ xam ne waneet na bu ñu toogee croiser la balaa dara pexe la ñuy lal waaye pexe googu yëpp si dëgg lañ koy teg te incha allah rabbi si dëgg lañ koy fas yéene teg may ñaan bépp responsable bu nekk Thiès man caravane uma taluma caravane awma jotu caravane mitinguma aw ma jotu meeting taluma meeting responsable bu ne sa koñ bi nga dëkk nang ko gagné loolu moo war a doon moo door bi bu ñu waree fal man day man sama wareef la ma defoon danaa ko def te gëm naa ne dina yong et dinaa la jox rendez-vous au soir du 24 février incha au soir du 24 mars man fii laa koy waxee j'étais dans l'opposition coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp ñu ànd maa leen sama centre de vote benn coalition moo a fi rawoon muy Yewwi Askan bi te onze voix lañ ma royee et je les lance un défi incha allah rabi je gagnerai ce centre de vote je gagnerai ce bureau de vote dinaa ko jël teg ko si loxo le candidat Amadou Ba j'exhorte à tous les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne li yi wàcc si terrain bi dugg si kër yi ku nekk na nga gañe sa koñ bu ñu gañee ku nekk bu gañee sa koñ gañee sa bureau de vote gañee sa centre de vote le mars à la lettre lay doon suñu candidat dina jàll premier tour te gëm naa dina jàll premier tour may woote j'appelle à une mobilisation exceptionnelle lu Saint-Louis réussir Matam réussir ko Podor réussir ko àll àll yi réussir ko Batamba réussir ko Dagana réussir ko Thiès waruñu see des gannaaw mercredi maa ngi woo population wu Thiès yëpp nañu génn si suba ak heure bu candidat bi war a yegg si Thiès nañ leen mobiliser wu wan Amadou Ba première victoire Benno Bokk Yaakaar Thiès lay tàmbale si kàttan yàlla suñu borom. kuy dóor moo mun kuy saaga ñun jàmm lañ fas yéene dem si élection yi jàmm lañ si fas yéene duggee jàmm lañu fas yéene fal suñu candidat muy Amadou Ba dëgg nag dëgg kenn du ko wecceek ay kàcc sénégalais yi yeewu li fi Macky Sall def président Abdoulaye Wade bi ñu àndaloon defu ko fi Abdou Diouf defu ko fi Senghor defu ko fi kon li fi Macky Sall def askanu Sénégal gis ko ba monde entier bi yëpp di ab président Macky Sall kenn moo ko mën a traduire mooy la personne de euh, du candidat Amadou Les critiques sont comme des murmures d'oiseaux dérangeants mais incapables d'empêcher le candidat Amadou Ba d'avancer et de gagner dès le premier tour. Amadou Ba est le meilleur profil pour prendre les rênes du Sénégal. Son parcours impressionnant, jalonné de succès et de dévouement à la nation, le place en tête des personnalités politiques les plus qualifiées pour diriger notre cher Sénégal. Homme d'État chevronné, Amadou de par son parcours et son profil, impose le respect. Le président Macky Sall a très tôt fréré le génie d'homme d'État prospérant en Amadou Ba un technocrate discret ayant un dynamique d'esprit de méthode et d'organisation pour en faire son digne successeur. Le candidat Amadouba n'a point besoin de l'État. C'est l'État qui a besoin de lui pour ce qu'il est et ce qu'il a fait dans son épopée. Amadouba, pour l'homme de la situation, il serait inconcevable de confier l'avenir du Sénégal désormais à des aventuriers populistes dont l'imaginaire est issu des concurrents extrémistes. Notre pays ne peut faire face aux défis de l'extrémisme violent, des tentations illibérales et de la défiance croissante vis-à-vis -vis du politique sans inventer un nouveau pacte républicain. À côté des infrastructures, il nous faut propulser un imaginaire d'espérance dans un pays dont la jeunesse constitue l'écrasante majorité. C'est ainsi qu'on écrit un narratif dans lequel cette jeunesse s'inscrit pour s'éloigner de la manipulation, des mensonges et des aventures dangereuses. Nous ne devons pas jouer l'avenir du Sénégal. L'État ne doit pas être laissé dans les mains des inexpertes c'est un devoir de chacun de nous de travailler pour l'élection du candidat Amadouba au regard des réalisations du président Macky Nous n'avons pas besoin de solution. Référence au titre du livre programme de son Solution, surtout et venant d'une coalition dangereuse pour la stabilité du pays qui ne maîtrise pas les rouages de l'État. Le candidat Amadouba est le seul capable de maintenir l'exceptionnel bilan élogieux de son excellence. L'heure est à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de la coalition Benno Bokk Yakaar et de faire face à des pyromanes qui veulent échanger la vérité par le mensonge.